jaaxle dañu jaaxle rek parce que géej gi amatul jën jën yu fi nekkoon jeex na euh, bato yi nga xam ne ñoom la état di signé jox ay contrat bato yooyu waxuñu ni na fi lépp jógee waaye lañu fexe ba wàññi ko ba nga xamante ni dina méngoo ak li nga xamante ni moom la Sénégal yi bëgg hmm. bu ko defee ñun ñi nga xamante ni ñoo yor napp bu ndaw bi ñu mën ci jariñu ñoom it ñu mën ci jariñu donc loolu rek la yóbbante yow nga jotaalal nu ko daal ndax it wax dëgg yàlla du ngeen ay noon mm. du ngeen ay noon mm. ay mbokki niin ngeen mm. te it euh, li ci yow mooy la ca Macky Sall mooy la ca mooy la keneen mooy la keneen kon daal li am soo rek mooy ñu leen di ñaan daal yéen ñi yor réew mi ne ci bopp réew mi ngeen fexe ba am jàmm su ngeen amee jàmm rek nu am jàmm waaye su ngeen amul jàmm rek jafe-jafe am kon ñu ngi sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk di gërëm aussi tamit père Mbuub père Mbuub ñu koy gërëm fu gërëm tàmbalee lañ ko lañu tàmbalee di ko gërëm ba fu mu yem parce que lii xew xale yi taxawu na leen amul lu mu ci deful moom ak ni mu ko bokk kon ñu ngi koy gërëm moom it di ko sant ak kuréel bi nga xamante ni bokk na ci di INAPAS ak yeneen kuréel yi nga xam ñoom ñooy kuréel yi nga xam ne ñooy saytu mool gi wax dëgg yàlla ñu leen di gërëm di leen sant ñoom ñëpp jërë ngeen jëf di jéggal bu baax nag ñu tuub rek ci kàddu yi ci Fass Boye fii ñu ñu dalal tey tànk yi nga xam ne ñu ngi ko dox jëm ci suñu borom ngeen dalal ñu ci barab bii di néegu suñu borom ñu ami jéegu jëme ko ci ñoo xam ne suñu borom daf leen jëlal boppam suñu yaakaar gën naa kawe kàddu yi nga xam ne it jëwriñ El Hadj yëkkati na ko gën naa dalal suñu xel ñuy yëkkati ay kàddu muy kàddu yu lottit lool waaye kàddu yoo xam ne dañoo defi jéego yegg si ba fii parce que Sénégal ci boppam ñoo bokk ak waa Fass Boye tiis wi nga xam ne dal na ci seen kaw tiis wi dal ci kaw Fass Boye Sénégal yépp bokk nañu ko ak yéen moo tax masol sumay dàll ni ma koy defe ci jamonoy jàmm ak leneen ak leneen jàpp ne jaadu na masol suma dàll ñëw fii dal leen jaale suñuy rakk yenn ci suñuy doom yi nga xam ne seen bakkan des na ci géej damay wax saa su ne nag ne lii dal Fass Boy dal jogo parce que bu ñu jógee fii jogo géej lañ jëm dal na barab yu bari yu fasantikoo ci réew mi damay wax saa su ne ne xale yi soxlawuñu imaam ku leen yedd ku leen yërëm lañu soxla nde kaddu yi nga xam ne yëkkati ngeen ko fii fas booy ku ne xam na ne maa ngi koy wax léegi ñi ma àndal ci oto bi ne bu ñuy natt premier quai de pêche ci senegal fii la waaye tey jii ni nga ko waxee moom boroom dëkk bi géej gi tumuranke na dugg tëmb dawi kilomètres yu bari def ci juróom fukki junni wala juróom benn fukki junni dawi kilomètres yu bari teer te mënuloo indi ñaar fukki euh, fukki junni walla lu néew ngay indi loolu metit la bu fekkee ne géej gi amatul dara yaa ngi koy wax léegi dafa am lu ko waral xëy na ci wàlluy matuwaay mooy repos biologique saax-saaxee nañu ko waaye it gaali tubaab yi ñu may ñu ñëw di napp ci réew mi lu jiig njaag ñoom yaa ngi wax sax xam nga yéen mag ngeen da ngeen koy rafetal waaye du ne mënees na ko yaatal des koo war a dakkal waxuma ne du ñu jaay tubaab yi jën waaye bu ñu yeggee ba war a jaay tubaab yi jën na ko doomu senegal yi defal seen bopp waaye paa ñu jël jën yi jox ko ñoom tubaab yi ñuy ñëw di napp napp jën gi di ko yóbbu ñu ñuy desi tumranke ku ne ci Sénégal xam na ne diggante Kafountine Jiwaalo euh, Yoff euh, Fass Boy euh, Gendar ba goxu mbaaj fu ci nekk fu ci mool nekk jàmbaaru fàq tëdd la ku ne xam na ne ñi nekk ci géej ak ñi yëngu ci jën dañoo mës di faj ay soxla tey jii ñoom ñooy wax seeni soxla kenn mosu leen dégg ci jooytu kenn mosu leen dégg ci tàllal loxo waaye tey jii yegg nañu ba ci ñi doon yëngu ci maanaam napp te daan faj soxla yi tey jii dañuy tàllal loxo dara waralu ko nag lu muy li gën ci ñun li ñu mën a jariñ ñu sàggane ko ba ñeneen ñëw jël ko teg ci loxo indil ñu torox tànge ak tumuraat ni mu nekkee ci géej gi noonu la nekkee ci wàllu mbay fas booy ku ne xam na ne imaam ratib dañuy yëngu ci wàllu napp waaye noonu la ñuy yëngu ci wàllu mbay bu dee ne nag baykat bi day bay ba noppi la mu bay mënatu koo jariñ bu bayee ba noppi la mu may bay mënu koo jaay ndax ni ñu ko defee ci géej gi noonu lañu ko defee également yaa ngi koy wax léegi borom euh, dëkk bi Baye bay Baye ci noonu lañ ko defee ci carotte gi noonu lañ ko defee ci supame gi noonu lañ ko defee ci kaani gi noonu lañ ko defee ci euh, soble bi la ngay bay nit day jóge Maroc dawal otoom indi carotte di ko jaay biir Sénégal pataas bi noonu lañu koy jëlee Mali def ko ci ay oto daw dugg ci biir senegal di ko jaay Sénégal alors que ñun ñu ngeeg suuf su nangu ñu ngeeg ay xale yu am pas-pas yu yor seen doole di bay te li ñuy bay ci réew mi mënuñu koo jaay ndax am na ñeneen ñu ñëw ci réew mi di jaay seen prodution loolu nag dara waralu ko lu may ñàkk fullal suñu bopp Mauritanie gii yéen baykat yi ku dem Mauritanie loo fa bay Mauritanie nga koy wàcc doo ko doo ko génne Mauritanie Guinée Bissau gii bu ngeen tëmbee fii jëm Guinée Bissau bu ngeen demee da ngeen di jënd licence huit cent mille jàpp un million trois cent kon jot na ñun ci suñu bopp ñu organiser wul suñu bopp nañu bàyyi di yóbbante galgal nañu bàyyi di wax naa ne nañu gouvernement bi defal parce que ñun ci suñu bopp war nañu mën a jóg bokk fa ñuy décider loolu nag fileeg jóguñu jëf ko taxawe ko ci metit yu mel nii rek lañuy nekk ci wàllu jafe-jafe jafe-jafe yooyu kenn teguñu ko lu may ñi nga xam ne ñooy woote ak mbubboo politique ci senegal politique bi gën mooy fonk sa askan politique bi gën mooy taxawu njaboot politique bi gën mooy taxawu borom kër yi parce que tey jii biir nañu ñëpp sonn na kàddu yooyu nga xam ne Baye Madiop yëkkati na ko jëm ci ñaan parce que bi fi tiis wi dalee ku ne yëg na fitna gi am ci Fass Boye loolu kenn xamewu ko Fass Boye kenn mësu koo déggit ci Fass Boye waaye situation bu amee dañuy xam ne dafa am lu ko indi nit nag mën naa jëf ba noppi juum moom chef de village ni mu ko waxee noonu laa koy laa ciy jaaraate ci njëkk di ñaan président de la république ñun njabootam lañu ñun xaj nañu ci moom waaye moom xajul ci ñun suñu juumee moom moo ñu mën a jéggal kon njéggal googu lañuy sàkku ci fukki xale ak juróom yi dëkk Fass Boye te ñu téye leen ci jafe-jafe ji nga xam ne amoon na fi du seenuk coobare du seen ñàkk xam du seenuk yaradiku ku ne xam ne ne fas booy kenn mësu fee dégg fitna yu demee noonu kon bu loolu amee ñun ñëpp ñu ngi nekk wenn say di sàkku ci président de la république ci turu mag ñi teew ci juma jépp ak kàddu gi nga xam ne noonu la ko kilifa dëkk bi wax ñu ci ànd ak moom di sàkku ci président de la république mu jëggal fukki gone ak juróom yi nga xam ne téye nañu leen ci jafe-jafe yi amoon ci Fass Boye kaddu yi daal jàpp leen ne kaddu yi mbokk la kaddu yi doom la kaddu yi mbokk taalibe la bu sol dàllam ñëw fii ci Fass Boye ngir lii suñu borom teg leen ngeen tegoo ko lii suñu borom teg leen ngeen natt ko te mu wóor leen ne suñu boroom moom mooy tegey nattu te nattu yooyu yéen ci seen bopp waa Fass Boye nangu ngeen ko tegoo ci tànk yooyu lañu ñëw di indi suñu njaal di leen massaw di ñaan suñu borom way dawlu yi fi jóge yal na leen suñu borom teeru ci àjjana yi gën a kawe foofu ñu nekk yàlla na leen gën a fii ñu nekkoon yal na leen cheikhul qadim ak seydina muhammad teeru foofu ñu nekk allahuma salli ala sayiduna muhammad